xam naa ni maa ngi wax en tant que Cheikhouna Mbaye nekk ki nga xamante ni moo géroon projet bi projet bi entreprise bi ko gagné woon mu ngi doon GTS General Trading Service moom moo doon exécuté travaux yi bi yàlla dogalee ñu dénku liggéey bi ñu ñu wéyal ko ba tey yàlla dogal ñu koy ñu koy jëbale kon loolu sant yàlla la bu baax waaye d'abord di sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo doon financé projet bi mu waa Tayssir ak Tayssir Achir muy daara des ingénieurs euh, ñi nga xam te ni ñoom ñoo doon euh, ñoo financé projet bi d' abord ñu ngi leen di sant ci choix bi ñu defoon ci ci GTS muy General Technical Service pour mu pour mu taxawee liggéey bi. yàlla dogal na nag liggéey nañ ko ci li ci teg teg ko tamit ci ci yoon teg ko ci norme yi nga xamante ne nii moo nekk en vigueur xamante ne nii. ci ak suivi boo xam te ni suivi bu aussi ci lañ ci lañ ci lañ ko liggéeyee mais yàlla dogal tamit mësuñu ci am benn jafe-jafe mësuñu ci am benn gàllankoor ci ci ba ba ni nga xam te ni finalisé nañ projet bi vraiment liggéey nañ ko vraiment teg ko ci ci ci ci ñi nga xamante ni daal noo moo tax ñu dénk ni ko ñoom la noonu lañ ko bëggee ñoom am nañ ci satisfaction kon je pense que ni ñun amuñu lu di leen remercier rek te la lañ ci bëggoon bu ñuy bi ñuy lancé appel d'offre bu ñuy suivre na tamit li ci yéene woon mooy comme bépp société bépp entreprise bu ñu la joxee projet yéen a ji ngay am mooy nga yéene ko ban ban réceptionné ko te amuñu ci benn loo xamante ne nii ay divergence la wala loo xamante ne nii jaarul yoon kon loolu sant yàlla la ñu ngi ñu ngi santaat encore ñi nga xamante ni ñoom financé projet bi waa Taysir Assis di leen ñaanal sëriñ bi nangu liggéey bi entreprise bi ko doon liggéey tamit sunu borom yokk ko moom tamit muy GTS ba fi mu bëgg a àgg ci ci liggéeyal sëriñ bi ñu àgg fa ànd ko ñoom tamit ñu ngi leen di remercier baax di ci kàddu yi ñu fi jàng jërë ngeen jëf